Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te Notre force. Le traitement de l'info. Bismillahir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ما نسنت الله تبارك وتعالى di julli ci sangam bu tedd bi soppeem bu màgg bi seydina muhammad ah, sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla yàlla yokk leer ak ngërmande borom xatmiya ak katmiya moolana cheikh ahmad tijaani anhu di ñaan yàlla yokk leer te tëbbuñu ci ay leeram sëriñ bi dëgg-dëgg borom mbóot dëgg-dëgg kii xam la yàlla dëgg-dëgg ki nga xam ne moom mooy xilaafa al uzma dëgg-dëgg di soppee rasulillahi di ndonoom muy Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallahu anhu maa ngi sant yàlla ci fii ci Medina Baye waaye ci ron suñ kilifa sama kilifa suñ xalifa sama xalifa waaye suñ sëriñ sama sëriñ suñ baay bu tedd bu am yërmande di sama baay turandoori Seydina Muhammadul Maahi sallallahu alayhi wa sallama muy xaadimul ummati muy cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Mawlana cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di jàkkaarloo ak mboolem soppe yëpp mboolem taalibi Mawlana cheikh Ibrahima Niass yëpp fii ci Sénégal ak ci Afrique ak ci àddina yëpp di sant yàlla di sant Mawlana cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di ko gërëm di ñaan yàlla gën ñoo yokk ay leeram moom Mawlana cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu li waral nag waxtaan wi ak soppe yi mooy sant yàlla ci ndollal ndollalu Cheikh Ibrahima ndax mbir mi Cheikh Ibrahima rek la ndollalu Cheikh Ibrahima ci payam bii waaye ci jamiyatu ansaaru diin muy jamiya boo xam ne bu màgg màgg la fa yàlla yàlla kese rek moo ko tax a jóg ak yonentu saa sama ak def lu baax ak xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal lislaam yàlla dogal sëriñ bi di xalifa bi di xaadimul umma ci mbaaxam ci xam-xamam bu jéggi dayoo waaye ci yaatal bu mu yaatal waaye ci fàtte bu mu dut fàtte jëf ju baax fàttewut kenn rakkam soppeem wëllëreem àndandooram ci baay muy sëriñ Maamun Ñas radiyallahu anhu gannaaw bu waxtaan amee démb moom xalifa bu tedd bi ak jaam bu bi di xaadimu saaxibul fayda ak suma baay bu tedd bi ku baax ki ku yaru ki waaye ki nga xamante ni nit la ak njub muy cheikh Mouhamadul Min Hamina cheikh Ibrahima Niass di président Ansaarud-Din di jiite Mahad Alhaji Abdallah waxtaan seq nañu démb gannaaw tisbaar bu tedd ci ron xalifa bu tedd bi. ci dogalu yàlla tabaaraka taala ak ci barke cheikh Ibrahim ci mbaaxu sëriñ bi ak xam-xamam gannaaw bu mu dégloo sëñ mun xamit naa sëriñ bi dogal na joxe ndiggal jox ma ma jiite ansaaru diin au niveau national muy loo xam ne nii waxuma ne pal la waaye ñaax la ak sonju ma maa ngi yéen soppe yi ci liggéeyal gën a liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mi waxoon ne inna layna xadamu ni naalu muraadum saadatan wa maalu képp ku ma xidmaal da jot sa càkkutéef ci alal gannaaw taxe àddina ak àllaaxira boo dundee da gis boo dee aljaan na nga jëm ci liggéeyal gën a takkaayu ànd ak fula ak nag bàyyi maslaa mu ñeel Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy lépp mooy fépp mooy ñëpp it mooy ku tedd tedd ki mooy ki nga xam ne moo moo jaral liggéeyal képp ku ko liggéeyal doo ko rëccu fii ci àddina waaye doo ko rëccu ci àllaxira waaye nag dafa laaj sellal liggéey bii ñu koy oote bari nañ waaye dafa laaj sellal kon sëriñ bi lim santaane mooy Baye Mamoun gën a la sellal gën la takkaayu yéen ndaw yi yàgg naa leen a yaakaar mbir mi du yow rek yaag ñëpp la yaag say rakk la yaag doomi Cheikh Mamoun yi doomi Cheikh Mamoun nag ay doomi góor lañu jigéen ay doomi maanaa la ak yu doomi deret waaye doomi Cheikh Mamoun tamit mooy doomi pays bi rek ndax Cheikh Mamoun bàyyi la doon liggéeyal ñëpp li fi nekkal kon daal sëriñ bi dogal na loolu wax na ne ànd na ci joxe na ci ndigal sant na sëriñ mun xamin naa Cheikh Ibrahima Niass mu def la ca war buñ paree ñu def délégation dem ci moom kon nag duma def lu may santaat sëriñ bi muy xalifa bi muy cheikh xaadimul umma firikati alquran bi mu cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass ndax ku sant nit doo sant yàlla am nañ mbégte waaye am nañ jaaxle mbégte lii mooy lan fekk na maa ngi liggéey ci komaaf fas eni di ci liggéey nag ba ba may dee ndax komaaf mbir la moo xam ne ki ko samp samp ko ci doom ak dara dara Cheikh Mamoun xaadimu Baye ka Baye waxoon ne ko laa tusxiluka xidmati ani dirasa yaa ngi may xidmaal waaye xidmaal bi nga may xidmaal bu mu la teree jàng yow Mouhamadul Mamoun ci kaw loolu la ko samp Cheikh Mamoun jaay ndoomam jëndee ko taale bi mu am seede bàyyi seedaloo ko sëñ Aliou Cissé seedaloo ko Cheikh Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ak ñeneen am na leetar maa ngi ko yore waaye bi yàlla defee mu jugee fii fi ma toog nii la xalifa bi toog Cheikh Ahmed Tidiane feddali loolu ñu nangu ko gëm ko fas yéene dee ci kon Komaaf moom nekk na loo xam ne maa ngi feddaliyaat sama kóllëre ci loolu ndax dañ ma ko mooñaalee feeg maa ngi dund incha allahu taala duma ma dañ di xidmaal xadara bi ci loolu beneen ndollal nag dooleeku ci muy jiite ansaaru diin jité bobu nak moy nek khadimu ansaruddin rek moy nek khadimu talibé bàyyi moy nek khadimu l'islam waye nak ngir khidmal ki nga xamné mom rek moma jaral khidma muy Mawlana Cheikh ibrahim sallallahu alayhi ki nga xamné tay kim jëm ci mom moy khalifa bu tedd bi am xam-xam lol am yar lol am ëddëb lol waye am fit lol nak muy Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh ibrahim Niass kon ci gatal la bàyyi nettali woon waa jooju ziyaara yontu bi sallallahu alayhi wa ne ko ziyaara nañ yonentu bi am nañ suñ càkkutéef ittahadal faro ma al asli loolu mooy am ci li nga xam ne mooy boole gi ma boole ansaaru diin ak komaaf muy benn te du ñaar ndax jëmm ju ne ju taxaw ju ne di doomi aadama ñaari tànk nga taxawee zaahir ak baatin moo fi nekk kon li ma fas yéene mooy sàkku ci sëriñ bi ñaan sàkku naa ko ci moom ci teewaayam waaye maa ngi koy sàkku ci fii ndax gëm naa ne mu ngi teew ànd ak man ndax taalibe bi mu dëggoo rek sa sëriñ a ngi ànd ak yow sàkku ko ci mbooleem doomi Cheikh Ibrahima yi sayid yi Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne moom mooy wakiilu daadin maa ngi koy ziyaara ci buntu Cheikh Mouhamadul Mahi nga xam ne mooy xalifa bi di ko ñaanal yàlla di sàkku ci moom ñaan waaye ak mbooleem doomi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di sàkku ñaanit ci imaamul akbar sayidi wa habibi Cheikh Ahmed Tidiane ibnu baabul xadarati wa xalifatu Cheikh Sëriñ Aliou Cissé radiallahu anhu maa ngi sàkku ci moom ñaan moom it di ko ñaanal yàlla di sàkku ci moom ñaan ci masuuliya bu rëy bi nga xam ne moo tegu ci suñ kaw ñun taalibe yi waxuma man de ndax man nekkuma man jaama baay laa taalibe baay laa surgaay baay laa fii ci àddina bëkki néegam laa loolu sax xeeb naa ko su ma amoon lu gën a yéesu loolu njaam su xeebu si ñeel na Cheikh Ibrahima ci àddina ak àllaaxira ba tax na maa ngi sàkku ñaan ci moom di ko sàkku ci ay rakkam yu tedd waaye magam di ko sàkku tamit ci euh, Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Seyd Ali Cissé di nga xamne ne porte parole bi moom ma ngi koy nuyu diko ziar waye diko sakku sàkku tamit ci mbollem ñom serigne aliou cissé radiallahu anhu bàyyi mom waxon lolu feeñu mo ma ne aliou mu ma del wax ñom serigne aliou cissé radiallahu anhu kon mbollem ñi àndoon ak baye serigne aliou di babul hadrati cheikh serigne mbay ñess di ki ñëk xam yalla ma ngi sakku ñaan ci xalifaam cheikh mouhamadul mahi cheikh serigne mbay ñess nga xamne baye bi mbinde lettre Ansarudin bi daf ne serigne mbay ma len bindon lettre bi ngi ngeen soppali jamaatu ansaru din waxe ko ci baat bo xamne baat bobu ben la jëm je ben la waye xolam bobu nga xamne mom baye leppam yunus bi sallallahu alayhi wasallam ben la cheikh serigne mbay momu baye tudon khalifa ma ngi koy talal loxo inshallah taala di sakku ñaanam ak xelaatam mok njabot cheikh serigne ak képp kuy taalibe wala ngay muxaddam kadaalika ni ko noonu kay tamit waa kër Cheikh Baye Ma Abdou Niang dégg nga njabooti Cheikh ma Boucar kadaalika tam mbooleem ñi àndoon ak baay Cheikh Ibra Fall nga xam ne ba faydu bi di feeñat ci kóosi mook Baye la woon boobu daanaka kenn ñëwagut ba nee nañ semaine bi mu mujjee nekk ak Baye bi mu paree ci la du bi tàkk njabootam muy Cheikh Baye dégg nga lii maa ngi koy taataan moom it ak mbooleem njabootam ak i rakkam Cheikh Baye Zeynabu sama soppe ma ngi ca Koosi ñoo bokk nekk foofu njabooti Cheikh Oumar Touré xalifaam njabooti Sëriñ Ousmane Ndiaye eh, ay sëtam ak i doomam Cheikh Baye Ndiaye xeebu ma ko mooy doomi Sëriñ Ousmane Ndiaye mi ngi fii am na doom am na mag moom ngi ca Amerika nekk fa imam Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di tàll loxo ak seen famille fàttewuma kenn nag ci muqaddam yi àndoon ak Baye fàttewuma Cheikh Kabir Faye ma mujjee moom ci London waaye tamit Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu tukulóori Baye njabootam ak mbooleem toppam sëriñ bi waaye nag ay magam yu tedd ay rakkam yu tedd nangul ko dégg nga ni ki Cheikh Baye Mahmoud xalifaam di Cheikh Mahmoud ak seeni njaboot kadalika waa kër Alaaji Bakar yi waa kër sëñ Ousseynou Niass waa kër alxaaji Mouhamed Zeynab waa kër alxaaji Ousmane Fati al imam waaye mbooleem ñi gàddaayoon ànd ak baay ñëpp ba ci Mauritania ba ci fu ne ci àdduna bi ñëpp maa ngi fas yéene taataan nekk jëwri ni baay nekk seen xaadim ci baay ñoom ñëpp maa ngi leen talal loxo mbooleem muqaddam yi nga xam ne ñi ngi ci jamono fii ci Ndakaaru ñëpp maa ngi leen tàllal loxo am nañu ci yàlla def ñu gën a fës ku mel ni Cheikh euh, sang Barhama Ndiaye ku mel ni euh, Cheikh Mamour Issa ku mel ni dégg nga Cheikh Sayid Sall bu Cerno Alaaji Ibrahima Sall njabooti Cheikh Abdoul Wilane Baye Awalu waaye tamit ñoom Cheikh Aziz Ndiaye njabooti Cheikhul Xayri ak moom ci boppam ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ku ma tudd ak ku ma tuddut man njaam ak njaam ak njaam njaam si bàyyi si maa ngi lay seedal ne waxtu yi moo xat rek waaye yàlla doy na ma seede yaa ngi sama xol maa ngi lay tàllal loxo. képp ku am xalaat nag bu rafet bu gën bu sell yéen taalibe baay yépp jaamu baay bi seen jaam ci jaamu baay mi ngi leen di tàllal loxo sama téléphone ubbeeku na sama jëmm ubbeeku na samay tànk. kàttan bu ma yàlla jox fas naa ne dox jëm ci njaboot yi bàyyi fu ñu mën a ne ci kaw suuf sama kemtalaay kàttan waaye tamit du ñàkk ñu dox jëm si ci man ñu bokk dajee bu ñu yéexee ma gaaw ñëw jël seeni xalaat ñu bokk ànd cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma li mu bëgg mooy bennoo waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu li mu bëgg mooy jeunesse bi taxaw ànd nekk benn bi nga xamee ne waxtaan nañ bokk na ci li wax ndax kilifa doo nettali waxam lépp te lépp lu baax la bokk na ci li mu wax mu ne am na mbégte ci jotaay bi waaye tam yàgg naa lii lum mu yàgg mébét la shabaab bi ñu booloo ànd boole doole yi boole lépp liggéey bi nekk benn maa ngi occasion ci lii nag di gërëm rakkam bu tedd moom xalifa bi muy président Ansaarud-Din muy cheikh Mouhamadou Mounhamina ibnu Mawlana Cheikh Ibrahima sallallahu alayhi ci jikkoom yu kawe cheikh mun xamit naa folliwuñ ko cheikh mun xamit naa daaneeluñ ko cheikh mun xamit naa moo dem ba gisal boppam ne tànn na féete maaxat bi ci lim nettali ci kanami sëriñ bi ma dégg ko te gëm naa ko ne dafa bëgg bàyyi maamun mii nga xam ne ñi ngi liggéey ci komaaf mu seede ay seede yu rafet ñu bokkoon di liggéey nag ma ne naa bàyyee ko lépp mu mana mëna yaatal liggéey bi té nga commence bi nga xamné ne lañ ko jox mu di ci liggéey Ansaarud-Din ko xawa jappalé ci wote finance ci na ko lepp nak su ko défé mu mëna liggéey organisation pays bi jité Ansaarud-Din sëriñ bi nangul lolu kon ci gattal lolu moy kaddu yi kaddu sant yalla la kàddu ngërmande la ma nga nuyu ñëpp ma nga sant ñëpp ma nga ñaanal yalla ñëpp ma nga eh, bëssal sama mbëggeel ak sama xidma ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu maa ngi sàkku ñaan ci sëriñ bi ak ci njaboot yi bàyyi gi yëpp ak mboolem ñu dëkkee Medina ak xusuuri bàyyi la sëriñ bi waxoon radiyallahu taala anhu xusuuri Madina Chaamu Koosu wa taybatun wa kawlaxu qad taxya bi zikri alladi kamul sama njënd yi sama capital yi sama palais yi te ku ne xam ne ne bàyyi àddina taxu koo jóg waaye ba mu ko waxee rek la ko yàlla defal muy ay palais zaahir rek kuy palais baatin mooy Medina Saam Koosi Tayba mu ne Kawlax nag dana dund amaan na ci tudd ku mat ki te ku mat ki mooy yàlla maa ngi talal loxo waa Kaolack waa Saloum maa ngi talal loxo waa Sénégal yëpp maa ngi talal loxo mboolem waa Afrique diaspora bi taalibe Baay ak alam bi yëpp fu taalibe mën a nekk waaye nag talal loxo tam képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax Cheikh Ibrahima Niass cheikhul islam yi ñëpp la ñëpp la fi nekkul diine ji moo ko ñor xam-xam moo ko ñor li nga xam ne nag moom laa awma lu may dara ci li Baay rëddoon ci ansaarud ñaanu ma ko yàlla ñaan leen yàlla musal ma ci loolu maa képp ko ànd ak man di liggéey waaye tamit fasuma éene wàññi ci daara ndax sëriñ bi mu maanaam Cheikh Ibrahim lim tëralee rek noonu la lim wax noonu la samina wa ataana lim bind noonu la lim tëral ci ansaaru diin loolu laa bëgg a réaliser ni ko xalifa bi bëggee nag nga xam ne moo fi toog tey yàlla na toogaayam yàgg sëriñ Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim maa ngi lay ñaanal yàlla yal la yàlla may tawfiq li ci lim la may yaakaari bàyyi nga nettali nañ ci xissa suñuy nopp ne ci jamonoy ndaw tawatoon na ba jaaxal nit ñi ña ko xamoon ba am lu ñu wax sëriñ bi ne waxuñ ma woon loolu ci moom def ci ite doggu ci warulul ko teg ko ci kawam kooku moo fi nekk ak ñun ba léegi yàlla mu ko fi bàyyi ba léegi yàlla na ko bàyyi ci lu ko soob moom yàlla may ko tawfiq moo ko ay rakkam yu tedd yi ak mbooleem njabooti bàyyi ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lii daal mooy yenn kàddu taalibe su xeebu di xam xamle nag ne ñes gi bu mu nax wala mu réeral kenn ci sant bi ak duma wax jiite gi ma jiite Ansaarudin waaye xidma bi ma yàlla may ma mën a fursa pour liggéeye ci Ansaarudin bi bàyyi rëddoon dégg dama fekk sama baay sama sëriñ Cheikh Mamoun Niass nettali na ma ko jëfee na ko bàyyi dëggal na ko seedeel ko ay nit te moom jëf na ko ba ñu gis ko jaay ndoomam gi jëndee ko taali bi bàyyi nangul ko ko man tam jaayante naa ak sama baay di sama sëriñ dégg nga ñun ak ak mag samay rak ak samay soppe li ma seedeel sama bopp xam naa ko yàlla doy na seede ba man taalibe la kon Niass gi jaayoon nañ ko bu yàgg moom la la kon yéen taalibe maa ngi yéen taalibe laa place bi ma nekk nii tey yàlla indi ma fii maa ngi ciy sant yàlla ci commence bi ak ci ansaaru diin bi fas yéene nag dénk ko yàlla tabaaraka taala waaw dogu naa ci sama sëriñ dénk naa ko yàlla ndax fi mu nii amatuma noflaay amatuma ay nelaw yu doy amatuma benn fursa bu may def lu may gën a farlu ci lii liggéey ci ba yàlla def lu ko soob ma dee maa ngi leen nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di yàlla maa ngi tàllal ñëpp loxo waaye maa ngi ñaan yàlla martaba Cheikh Ibrahima ànd ak man ak yii maam ba nga xam ne liggéey bi dana am fu mu war a am ba bu mu am gàllankoor ba lépp lu ko xala gàllankoor ci yéene wala ci pas-pas wala ci pexe Cheikh Ibrahima martabaam na dox digganteem ak loolu ndax lii moom fullaak bàyyi gi laa ci bëgg a teg def ndax daan masalaa yu bëri nag eh, di nooy ci yu bëree bëri bëri bëri surtout ci komaaf bi nag li may wax ñii xam xam nañ ko waaw waaye nag ëddëb rek laa doon jëfandikoo ak muñ yàlla indi na nii rek fi ne nag moom ah, sëñ bi daf maa sas mm-hmm. sas sas boo xam ne nii tiit naa ci ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi Huud euh, wa axwaatuhaa wàccee bi ñu ko laajee li tax nga xam ne moo tax nga béjjaaw mu ne aaya yi wàcc foofu ak saar yooyu moom moo ma tiitloo ba damaa dama dama damaa béjjaaw waaw kon nag responsable boo xam ne bàyyi lay liggéeyal sëriñ bi bàyyi lay liggéeyal bàyyi lañ koy xoolee mooy bàyyi mooy Cheikh Mahi Ibrahima Niass kon nañ xool bàyyi ci moom nañ gëm bàyyi ci moom maa ngi tàllal loxo ñëpp ci ñuy jopp bokk liggéey di xam ne nag ne ansaaru diin bi ni ko bàyyi bëggee woon rek man foofu laa yem loolu laay wax ñi fi jiitu nag doon ci liggéey ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. aleykum Cheikh Mouhamed na Cheikh Ibrahim ak magam bu baax bu tedd di sama papa mi Cheikh Mouhamadul Qurayshi Cheikh Ibrahima ñu ngi fàttali ko jamono yu mu ko yore yoree góorgóorlu na ci taxaw na ci macha allah kadalika ni ko tam oustaz Ibrahim Mahmoud Diop El Marja maa ngi koy fàttaliku ci toogaay bii ma toog li ma nekk nekk nekk ndaw ci jamono yooyu waxambaane mbaa nekk ca mag fàttaliku naa taxawaayam ba bi may màggee fekk mu yore ansaaru diin maa ngi fàttaliku tam Cheikh Mamoun Ibrahima Niass nga xam ne moom it liggéey na ci ansaaru diin waaye itam maa ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh nga xam ne moom la sëriñ bi defoon muy jiite ansaarud au niveau international dégg nga ba mu yore ko kon maa ngi ci ronam maa ngi ci ron Cheikh Mouhamadul Amin maa ñëpp ñu ñëpp ñu ci ronu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma maa ngi koy ziyaara maa ngi ziyaara samay rakk samay doomi baay dale ko ci Cheikh Ibrahima Mahi dale ko ci topp ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Abdallah samay mbokk yu baax di borom xam-xam waaye seeni rakk ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Cheikh Khalifa Cheikh Hamidou ñoom ñëpp Cheikh Khani ak Cheikh Makki ak ñu ma teewluwut seen tur ak seen mag Seyda faatima Sara ak Seyda Aïcha yàlla moo leen cëralee loolu ñu gën ñoo jege ci deret sëriñ bi waaye nag maa ngi ñoom ñoo ko bokk ak yéen maa ngi leen di tàllal loxo ci lii ak képp kuy xaasiya ku nekk ak sëriñ bi leen wax ne farlu gi ma farlu ci lii farloog bàyyi la na ma ñëpp jàppale fas naa ne jël xalaate ñëpp pour liggéeyal sëriñ bi maa ngi woo tamit mboolem sëti bàyyi mboolem njabooti maam alxaaji abdallah ndax yëf yi dafa yaatu loolu moo koy yaatal ci liggéey bi nga xam ne ci laa nekk bokk ko yéen ak ñu ma ci fekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñoom ñi ngi jëm tay ba ngeseen juddug Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy leeru leer yi Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo xam la yàlla juddoo tay ba féeñee koosi sanc Medina toj àddina bi ci laa ilaha illallah mooy toj xol yi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon nañ leen sax ci yoonu Baay nañ leen fàttaliku ragal yàlla nañ leen fàttaliku lii pays bi bëgg di xalifa bi bëgg te mooy xam-xam ak njub ak ñu am wërsëg Cheikh Mahi visionnaire la Cheikh Mahi Ibrahima Niass savant la waxin la ci ñi mën a dégg savant waaye Cheikh Mahi Ibrahima Niass wëllu yàlla la bàyyi ko wax boobu xëy na moo gën a wér ci yi ma wax yëpp ndax bàyyi moo waxal boppam ne ñaan naa leen yéen samay doom lu jiitu ngeen ñëw ca xay bu ngeen di ay wëllu yàlla kon ku ne wëllu yàlla war nga mën a doon lu nekk kon daal ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal tawfiq di ko ñaanal eh, taysiir di ko ñaanal barke di ko sàkku ci moom loolu moo doon kàddu yi maa ngi delloo sama bopp di loolu ñëpp ci ragal yàlla ak mandu waaye nag ci bëgg Cheikh Ibrahima Niass ak xidmaal ko gannaaw loolu nag presse bi nga xam ne ñooy média Fayda ci njiital eh, Omar Wañ di coordonnateur bi ñu fi teew ñëpp ak ñu wutu maa ngi leen ñaanal yàlla di rafetlu seen taxawaay ñu di leen talalaat loxo bu ëpp bu ma leen tàllaloon ci liggéey bii di ko tàllal tam ñi nga xam ne mooy euh, euh, dégg nga euh, Cheikh Ibrahima Guèye muy Alfayda fii ci Medina Baye rajo télévision Alfayda waaye di ko tàllal loxo tam presse Sénégal sénégalais yëpp fii ci Kaolack ci Dakar di ko tàllal loxo àdduna bi yëpp ci buntu bëgg liggéeyal Baye. maa ngi gërëm maa ngi sant maa ngi ñaan yàlla saxal jàmm ci Medina. ak mboolem ñu ko dëkkee. maa ngi def appel nag. jëmee ko ci ooteeb Cheikh Ibrahima bi mu oote ci ansaaru diin waaye ci làmminu ak ci bunt ak ci ayeeb yàlla na yàgg xilaaf ak Cheikh Mahi Ibrahima Niass di oowaat sama bopp di owaat mboolem taalibe yi ñu gën a jàpp ci ansaaru diin ni ko bàyyi bëggee woon. mboolem ñi adhéré wutoon tam maa ngi leen di tàllal loxo fas nañ yéene facilité leen yoon wi ñu ci oo ñëpp ñu bokk teg ko ci yoon xalaataat ansaaru diin xoolaat ko indi coppite yu bees yoo xam ne dafay dëppoog bëgg xalifa bi. ci kaw bëgg-bëgg Cheikh ibrahim bi nga xamne bëgg-bëgg yàlla la wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin xaadimu sahibul fayda muy bay Mamoun ness di président komaf di président Ansaru di jamu Cheikh ibrahim ness wa salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel. Uras Info. Djangadjou yu xóot notre force le traitement de l'info